que dans aujourd'hui, euh, la personne qui m'a accusé allait fournir les preuves pour que le tribunal puisse se prononcer afin qu'on fixe un délibéré. Donc, il n'était pas prévu de faire une déclaration. Mais ce qu'on retient aujourd'hui et ce qu'on constate, M. Sonko use et abuse des renvois.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 il est dans le mensonge, il est dans la conspiration, il fait du théâtre et il continue à faire du théâtre en manipulant des milliers et des milliers de jeunes. Pour une fois, pour une fois, s'il a de l'honneur qu'il produit ce fameux rapport qui m'accuse, pour une fois, s'il a, il a de la dignité qu'il produit ce rapport, mais Ousmane Sonko n'en a pas. Gor, gor, mooy joxe kàddoom dem. munoo toog bis bu nekk nga ni diw sàcc la diw def na lii diw def na lii ba ca vey ba ngay waaj a ñëw nga ni yow lépp yaa ko téye sa loxo heure boo ñëwee ni que tey dàq naa ko dama feebar sama ndigg day metti ay xale ñoo ma tardeel loolu lépp pour indi ay waxi kasaw kasaw yàgg dëgg gàtt dëgg ala kulli al Ousmane Sonko dina sëgg taxaw indi rapport bi mu wax wala senegal yéen ñëpp ngeen xam ni kii du waxkatu dëgg du wax katu dëgg sax laay wax parce que bu doon wax dëgg au moins mu fournir preuve yi wax mais fitna lay jéem a yëkkati duñ ko ci topp parce que xam nañ ni que fi ñu toll nii nii moom fitna rek la yaakaar pour mu génne ko ci ñun dañoo am intérêt pour que tribunal wax wax liy dëgg parce que amul lu muy wax duñ ko ci topp parce que bëgg nañ réew mi dal duñ ko ci topp parce que bëgg nañ suñuy doom xëy di jàngi duñ ko ci topp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 parce que loolu mooy wàllu gor bu ko deful du gor bu ko deful fenkat la bu andiwul rapport du nit ku baax bu andiwul rapport soskat la bu andiwul rapport mérité wul jiite Sénégal